tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mboolem yéenekaay ñu xëyee ndoo yépp xëy yóbbu ñu diwaanu Tiwaawoon yéenekaay gi di Rewmi Quotidien L'As Vox Populi di Quotidien Source A yenekaay yépp xëy di ñu tàggee Pape El Hadji sii mi nga xam ne mooy yoroon kàddu Tiwaawoon ñépp ràññee woon ko ci ak mbaaxam ci ak yiwam yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa ay témoignages yu bare bare yoo xam ne ay kilifa daan nañu ko yëkkati jagleel ko Pape Malick Sy mi nga xam ne moo génn àdduna ni ki démb njiitu réew mi di président Macky Sall daan koy rendre wax ne nit la koo xamante ni nit ku yaatu woon la nit ku baax la woon nit ku tabe woon la Umaro Sissoco Embalo njiitu réewum Guinée moom tim desul ci mbir yi la mu xamle nee na jamono ji bu ñu waxante li am mooy adduna bi ñoo ñàkk waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo jullit yi Barthélémy Dias nee na umma islamique bi yépp ñoo ñàkk Marème Faye Sall soxna si njiitu réew mi moom tim la mu xamle nee na Serigne Pape Malick Sy nit la woon koo xamante ni maanaam nit ku la xam-xamam fu ko yéenekaay gi ba tey di réew mi quotidien Abdoul Mbaye moom tam yëkkati fa ay kàddu wax ne Serigne Pape Malick Sy nit la koo xamante ni ku bëggoon réewam la ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal laan ñu tiwaawoon jamono ji ñoo ngi jooy ki yoroon seen kàddu daal nañu koy denc niki démb Moussa Ndiadakhoune saweetu Cheikh Tidiane si Al Maktoum niki démb ngir na dencoon ko maanaam jafe woon na lool ndax mbooloo mu bare bari ñoo ko gunge woon yéenekaay gi mu ñu xamal laan ñu ki nga xam ne nag mooy xalif général des Tidiane di Serigne Mbaye Sy Mansour moo ko gunge ba këram gu mujj Serigne Mbaye Sy Abdou moom moo ko jullee yéene kaay gii di réew mi quotidien Idrissa Seck moom tam yëkkate ay kàddu yu seede wax ne Serigne Pape Malick Sy nit la koo xamante ni amoon na xam-xam boo xam ne yaatu woon na lool waaye na kaay woon na loola président Mbagnick Diop moom tim xëy di jooy ab xaritam wax ne ñàkk naa koo xamante ni sama xarit la woon sama mag la woon nit la koo xam ne mën nañoo wax ne jamono ji Sénégal moo ñàkk waaye umma islamique bi yépp ñoo ñàkk Serigne Pape Malick Sy nit la koo xam ne amoon na dayo bu yaatu woon na ubbeeku woon na ba pare bëri na ak njéggal président Mbagnick Diop nee na nit la koo xamante ni dundam gi yëpp maanaam nit ñi am jàmm ak chrétien yi ak jullit yi nekk si jàmm loole yàgg na sa dox jamono ji nag nañu ñaan yàlla suñu borom daal di sotti ak njéggal ci kawam tribune yéen kay mu ñu xamal laan ñu génn àdduna Serigne Pape Malick Sy tax di Medina Baye di Léona Niassène di Ndiassane di Canaba di Laayeen yi di église bi di famille omarienne ñëpp jamono ji ñoo ñàkk kenn ku nekk yëkkati na ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ne maanaam mooy jëmm ji nga xam ne moo fi bàyyi ko ñëpp ko sant ñëpp ko gërëm ñëpp a xamoon ak mbaaxam ak xam-xamam bi nga xamante ni amee woon na ko ak li mu dox ci réew meek ni ko diine ñore woon yéen a kaay gi de libération bàyyi mbir moomee waax ci mbirum coronavirus bi nga xam ne mooy jaaba jónge ci réew mi jamono ji nag soo moytuwulee caaf dina xëm Assane Samb xëy jëli xalimaam ne république bi jamono ji dañu ko daal di quarantaine ndax njiitu réew mi dañu ko ber ministre de l'intérieur ñu ber ko ministre de la a kaay Thiès foofee am na kenn koo xam ne ame na fa woppi coronavirus journal bi du su a xëy yóbbu ñu diwaanu Touba nee na ci benn quartier bu ñu wax Daaru Karim foofee ab poste de santé boo xam ne dañu fa dencoon ceeb ak diwlin ak suukar war koo jox askan wi maanaam mooy ceeb bi Mansour fay di séddale wisil bi nga xamante ni moo doon garde poste de santé bi moo sàcc si ceeb bi sàcc si suukar si sàcc si diwlin gi waaye nag daat nañu koy teg loxo attee nañ ko tëj nañ ko lu toll si ñetti weeri kaso moom nag da doon jéggalu démb attekat yi waaye dañu koo xamal na ko duñu la jéggal ko laajee na ko ceeb beeg diwlin geeg suukar si nga sàcc loo ko doon doyee la mu xamle mooy sama waajuru jigéen moo ko yitte woon moo tax ma daal koy jël yéen kaay gi di Sud mu xëy dikkal ñu ci lu jëm ci wàllum njàng mi nga xam ne commencé waat na waaye nag li ñu nemmeeku ci ndakaaru mbir mi jaar na yoon ca Saint-Louis protocole sanitaire bi gars yi respecté nañ ko si établissement yi waaye nag gaawantu gi nga ni gaawantu nañ ko yi xam ne ñoo war a def ay examen dem defi ko diplôme bi soo muy di nekk ab diplôme boo xam ne diplôme wayaa wayaa lay nekk nekk yéen a gi de la témoin mu ñu xamal ñu li am ba des lu jëm ci wàllum dooraat njàng mi ministre bi ñu ko dénk daan na koy réussir yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal la ñu Afrique mooy continent bi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy produire drogue ñoo ëpp lu ñuy jëfandikoo drogue ñoo ëpp lu ñuy trafic drogue loole nag ab rapport office des nations unies contre la drogue moo ko xamle yéen a kaay gi de san mu xëy di ñu xibaar Liverpool na champion bu Angleterre yéen a kaay gi nee na démb la ko nekk Coutinho ci matcham bi doon dox diggante ak Chelsea jamono ji li des ci ay journée bëri na lool waaye nag Liverpool jël na championnat bi Sadio Mané bokk na ci joueur africain yi nga xam ne jël nañu Premier League yéen kaay gi neen lu toll si ñaar fukk ak ñett ci ay poñ la Liverpool rawee Manchester City lii nag guléet muy dog di am ci Angleterre